bismillah barkeb sëriñ Bamba masaalikul jinaani jeede àgg na insha allah léegi nga dégg ubbi na jumaay sëriñ Bamba Dakar ja yegg na ndem neex na buur léegi nga dégg ubbi na bakkub sëriñ Tuubaa bi tey defes na fee ca Dakar ku xool ko gis na ñaa fukk ciy miliyaari yay da teg na lii la murit yi jëf de ak ko gëm na fu waay boo ci Afrika ba àdduna dugg Dakar nga xam ne Bamba daan na Bamba ne woon tayam ju ne na la jiitu woon masaaliku dëggal na te sax jumaay Dakaaru jee nuroo na ja nekk Tuubaa mbiri Bamba yéeme na jumaay Tuubaa Bamba ko naa loon wér na ba jëf ja des mu fàddu dem ca aljana ji ci Dakar Cheikh Saalihoy ki naal na ba jëf ja des mu dem jinaan ni am na Cheikh Moustapha Keita wu Bamba mat na moo fonduma juma jëlee ba sotti na ka njëkk toog ci sët yi muy lamiina moo fonduma jumaay Dakar ji wér naa alxaaji Cheikh Mbakke bu soy ki natt na jumaay Tuubaa ne xam-xamam ba sell na Cheikh Moustapha sëtam bi tey xiblaal na jii ci Dakar moo tax cosaan la dékki na daara ju mag ji xamle xam-xam am na ca jee ji ci Dakar it yor na jumaay Tuubaa fan ko naa loon randu na ji ci Dakar fam njëkke woon toxoo na taaram bu rëy bii mu amee waneeti na ndamul islaam ku weddi tey tiitati na ku dib jullit bu gëm yoneen ba bëgg naa ci ndamu sun islaamu ji de màgg naa ku taxawoon ci ji jumaa yayoo cant gu rëy naa doore mbër ma wéy naa Cheikh Saalihu mooy ki sosoon te jiitu na yàlla na ko bor bi yàlla fay lor rëy na alxaaji baara doomi fàllu jëf na yàlla na ko bor bi dolli leer gu yaana ibnu lamin saydi muxtaaru sof na ci ji juma ay jëf yooyu sakkan na yàlla na ko bor bi fay jëfam ju siiw na ci ji juma ak ku ma wax amiina almuntaqa sunub xalifa doon na jëwriñ ju mag yàlla na fi sax nisuuna moo taxawal cheikh saalihoog lamiina ak siidi muxtaaru ma doon kiimaana ba tey mu doon xalifa ñépp gis na moom li mu jëf sun muntaxa raw na yàlla na fi sax ba doon kiimaanu fés na ci bëgg cheikh bamba te na kañ duppe cheikh basiiru mooy kayor na kàddu murid yi lépp rafet na ab taxawaayam ci masaalik doon na lu nëbbuwul yal na fi sax ne wàcc na Baay Mbàkke Fay nan ko gërëm taxaw na def li ko war ci ji jumaa ba mat na yal na daje ngërëm lu rëy ne am na ay ndam yu sax xamal ne xel yi dal na la jumaa ja tey tëlim ya leer na la war jumaa ja tey tëlim ya leer njiitu réew wàcceti na bul fàtte Ablaay Wàdd njiit la dem na ci jamonom pàkk bi mooy ki jël na jox ko sëriñ bi kii de moom sagal na kuy am murit ak kuy jullit bu gëm na ñaan mu wér te yàgg ndax jëfal na Seexul Xadim ba tax na ñépp bég na ku masa def sa coono ak ku jël na ñaqam def ci ji jumaa santeef na masaalikul jinaani jee tey fay na ñaari guddi ndakaaru yooye wér na Cheikh Bamba dal am ngërëmam tey leer na ña di nga toon seen jëll tey de set na bàkkub xadim ndamul islaam taxaw na ba àddunay tukki de Bamba xew na bàkkub xadim ndamul taxaw na ba àddunay tukki de Bamba xew na ku yowwu tey xellul te ñëw ndax jot na ab diir mu néew ku yéex mu daani réccu na kon sant na ndax yàlla buur bi def na ñu di jullit di ay murit yu wér na man jii di di abdul xaadir war na ma daldi far taxaw lu doon des na naaxat mu nag way wi te ki gën na almuntaqa moo ki ak kuñi na ab taalibe ñu yàgg wér te rabbana may nu ñu gën di àndandoo ci àdduna kon lañuy wax jaajëfe bamba sayxu naa te julli nag ca Mustafa sayyiduna ak i ñoñam ak saaba yaa ko topp naa sunna si yoneen sala alayhi rabbuna alhamdulillah jërëjëfe Sëriñ Tuba képp ku diglu way yi maa ngi ñaan bu jàppande nga yaatal ko yàlla nañ ci daje ngërëmul Sëriñ Tuba Sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér amiin jiili Abdul Xaadir Njuuk